te ñuy barkeelu ci yonent bi bu baax a baax a baax na ñuy barkeelu ci moom na ñuy barkeelu ci moom lu la jaaxal jaaral ci sa sëriñ ci sëriñam ci sëriñam ci sëriñam ba ci rasulullah nga njëkkee say salaatul fatih boo dul tiijaan defal say salaatu ala nabi te bul tàyyi di jokk ci yonent bi yonent bi soriwul dara laqad jaakum rasulun min anfusikum kon mu ngi ci yow laqad jaakum rasulun min anfusikum sooy julli ci moom azizun alayhi ma anittum xarisun aleykum bil muminina raufun rahimun yëpp di nga ko am di nga am yërmande di nga am yërmande dinga am cofeel lépp yàlla dina ko dëxëñ ci yow booy julli ci yonent bi laqad jaakum moo la ko firil diiru ngay julli ci yonent bi yaa ngi ci biir yonanti bi moo tax yonent bi ne bu ngeen di julli ci man yàlla day yebal malaaka moo xam ne day ubbi gémmiñam ba ëpp sa gémmiñ mu dëpp air sax du échappé ndax air bi bu échappé rek ñoom manque de respect la te malaaka bu defee manque de respect yàlla dégradé ko moo tax booy julli ci yonent bi dañuy dañuy ñëw jël seen gémmiñ dëpp ko ci sa gémmiñ ba mu ëpp sa gémmiñ comme ni ngay solee masque noonu la ñuy dëppee seen gémmiñ moo tax yonent bi daan wax ne bu ngeen di jàng alxuraan wala ngeen di julli ci man soccu leen xeen xet gu neex ndax malaaka yi seen gémmiñ yi ñuy dëpp ci seen gémmiñ moo tax salaatu ala nabi am doole booy wax boo rawati nag salaatul faati boo ne allahumma malaaka mi ne allahumma salli mu ne salli fekk sa sëriñ wax na ko ba pare yow booy waaj pour ne allahumma rek sa sëriñ yëg na ko bu yàgg bu ko xaalam yëgut rooxam yëg na ko julli na ci yonent bi sëriñam julli ci yonent bi sëriñam julli ci yonent bi ba ci Seydina Cheikh buñ ko yëgut ñoom Seydina Cheikh a leen di wax pëkk-pëkk am na sama taalibe buy julli ci rasulullahi gaaw leen ngeen feelu ko gaaw leen ngeen feelu ko moo tax taalibe bi buy sikkar dootul moom sëriñam la ba ci Seydina Cheikh malaaka yooyu nag dañuy jël seen gémmiñ dëpp ko ci sa gémmiñ dara du échappé moo tax salatu ala nabi foor moo tax laqad jaakum rasulun min anfusikum lu tax azizun alayhi maa anittum xarisun aleykum aleykum la bil muminina yow mi ko gëm ba di sikkar raufun rahim wa tax laqad jaakum it am doole de yow mi ko gëm bay sikkar bil muminina raufun rahim ka ko gëmul nag ba di ko weddi fa in tawallaw fa qul xasbiyallah Ah? ah ka ko gëmul bay weddi salaatul faatihi wala weddi julli ci yonent bi ne ko qul hasbiyallah alayhi tawakkaltu maag yow ak moom yëpp wa ilayhi unib nga delluwaat ca kaw fii nag nga ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum lu tax bil muminina bil muminina raufun rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim du noonu huwa al aliyul azim rabbul arshil azim huwa al aliyul azim moo tax ayatul kursi yi ak laqad jaakum am doole wa huwa al aliyul azim rabbul arshil azim rabbul arshil azim huwa al aliyul azim aliyul azim huwa rabbul arshil azim diggante boobu rek lu ne fa nekk hmm? waaw wa miqdaarihi al azim door a ñëw hmm? wa miqdaarihi al azim door a ñëw al miqdaar huwa rabbul arshil azim wal miqdaar huwa al aliyul azim miqdaar lu tax nga ne miqdaar wax ma ko xaqa qadrihi moo tax nga ne miqdaar xaqa qadrihi kenn xamu ko ku dul miqdaar miqdaar huwa rabbul arshil azim wa huwa al aliyul azim <laughs> Omar loolu la yàlla dogal de waaw xaqa qadrihi kenn xamu ko lu dul miqdaar al miqdaar huwa rabbul arshil azim wa rabbul arshil azim huwa al aliyul azim moo tax kenn mënta julli ci yonent bi ku dul yàlla foofu nga koy déggee moo tax doo wax mukk usalli ala nabi da nga koy wax allahuma usalli ala nabi déedéet da nga naa allahumma moo tax nga dégg ponkal ma waliyu ba xutbu ba alfardu ba aljaami ba mawlaaya cheikh alhaaji abdul daan wax ne seydi aboubacar si nee na buum bu teengee dañ ko yeew ci bopp yëkku kuy yàlla ñun ñi nga sant ñu julli ci yonent bi ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu ñun ñi nga ko sant yow yàlla mi ko santaane ak ki nga ko wax ñu julli ko ci moom da ngeen ànd set wecc ñun ñu tulim nukk ngeen weex tàll ñu ñuul kukk ngeen kowe lool ñu suufe lool ngeen baax lool ñu ayib lool kon li nga ñu sant bañu ñu de waaye dañ koo mënul kon salli alayhi moo tax nga ne allahumma salli salaatu bu mën a doon am na allahumma télé gi nga télé moo tax nga jëli yàlla ne ko munuma de bañu ma dama amul kàttan li nga kowe lool ma suufe lool nga set lool ma tilim lool nga baax lool ma doy waar lool te ki ma sant ma julli ci moom yaa ko melal ni nga ko melal mu set wecc man munuma de dama amul kàttan kon allahuma yow buur salli aley moo tax kenn julliwul ci yonent bi ko dut yàlla moo tax nga abbi da nga abb allahumma yow buur salli jullil ma ala sayidina ci sang suñu muhammadin kiñ sant sante yaa ko njëkk a sant asamaan yi sant ko nga door ko wàccee waa suuf sant kan alfaatihi ki ubbi li tëju woon lëpp moo wax ne ana kanzun la oraf lam oraf dañ ko nëbboon waaye bi yonent bi ñëwee la lëpp ubbeeku moo tax alfaatihi li maa uxliq moo ubbi lépp lépp lu tëju woon alfatixi li ma wal xaatimi li sabaq ku amoon mbaax ba di ko jaay ku baaxoon bañ di yiim ku ko muy alquranul karim ak sa jëmmu bopp ji naasiril xaqi mooy ci dëgg ji mooy moom ak alquran ak diine l'islam kon boog ñu ngi lay ñaan balaa nga ñoo may dara wal haadi may ñu njub ba pare njub goo xam ne ila siratikal mustaqimi daf ñuy teg ci sa yoon wi ne caw jëm si ci yow soxla wuñ zigzag nii rek wal haadi ila siratika al mustaqimi ihdina sirata al mustaqim ay seex lañ fatiha mooy góor salaatul fatiha mooy jigéen ñoo bokk fuñ jógee yàllaa leen wàcce wal haadi ila siratika al waala alihi ak mboolem sëtam yeeg ñoñam ak xeetam yépp boole leen ci biir xeet week sët yeeg sëtaat yeeg ila yawmil xiyaamati ñëpp a ngi ci biir waala alihi jooju ñëpp la dugal ñu ne ko am na ñu fi jaaroon wax lu mel ni nga wax mu ne man yàlla may wax di man du ma waxandoor ak kenn ku may waxandooral nga noppi xaqa qadrihi laa wax ñu ne ko xamuñ luy xàq qadrihi mu ne indil miqdaar al miqdaar huwa allah moom rek a xam miqdaar fu mu nekk ñu ne ko indil miqdaar xàq qadrihi wa miqdaarihi al azimi bu la neexee nga ne xàq qadrihi huwa allah wal miqdaar huwa rasulullahi miqdaar bi dëgg-dëgg nag buñ la naxut al miqdaar xaqiqatan huwa rasulullahi kemu yonent bi kenn xamu ko ku dul yàlla moo tax miqdaar biñ war a peser yonent bi balance boobu kenn amu ko ku dul yàlla wa ma qadarullah xaq qadrihi lum ca teg wal ardu jamian qabdatuhu yowma alqiyamati wa samawatu matwiyatun bi yamini moo lay wan ne xaq qadrihi am na doole ah wa ma qadarullah xaq qadrihi wal ardu jamian moo tax boo sikkaree salaatul fatihi jamiul ardi ñoo ko sikkar moo tax Seydina Cheikh na sama taalibe su tëddee di nelaw ba cinq heures du matin mu jóg def ñaari rakk yu woyof dem ca jàkk ji julli wadif mu ne balaa jóg ki dul sama taalibe jaamu yàlla ba bër set balaa ñu ko bind ci kontam bind ko ci sama kont taalibe bi ba pare man waxuma de Seydina Cheikh mooy wax de bu kenn dem de Chérif Ibrahima ma Seydina moo ko wax ci Jawahirul Maani mu ne bu ñëpp jaamoo yàlla ci aalam bi te duñ ay tii ña ca tiijaan balaa ñu koy bind ci seen compte ya ba dañ koy bind ci sama compte taalibe yi ba pare doon leen koo bindal ñoom ñu ne ko lu tax mu ne sama pouvoir moo toll noonu cee yàlla ñu ne ko waaw ñoom ñi ko liggéey say taalibe di nelaw nag mu ne ci sama conte lañ leen di fay te man maay superviser yëpp xam nga noo koy dégg doomu président Macky Sall lu mu mën tey mu ngi jàng ama amagut liggéey dëgg walla fen am na ci doomam boo xam ne mook sama doom yi bokk fu ñuy jàngee oto bi koy indi huit huit la comme bii day gaare midi eh, huit ci suba di ralentir ba cinq ñaari garde yaa ngi ci biir di xaar xale bi clim clim baa ngi daw du fay oto bi du fay kilim bi du fay ba di heures la ñuy wàcc wala 16 heures xale bi ñëw ñu jël xale bi escorté ko dugal ci biir oto bi continuer dem chaque jour nag que jëfee chaque jour laa la wax chaque jour bu kenn yàq la am na ci droit waaw ah, du yàq xam nga lu tax bakkanu doomam mooy bakkanam ma ko ndax defaluma dara nag dëgg dëgg nag Macky Sall ma dara nag ci rajo lay wax de ci télévision laay wax dara ma ko ma un franc yàllaa tax may wax waaye damay joxe exemple tey jàngale te moom la fi yàlla teg kon fokk ma tudd ko du dëgg moom la fi yàlla teg kon fokk ma tudd ko am na ci droit ndax bakkanu jabaram bakkanu doomam mooy bakkanam ku koy ut te mënu ko jot ci jabaram lay dem su mënta jot jabaram mu dem ci ay doomam dëgg wolof ne ko lay wut te jotu say doom lay dem déggoo waaw kañ donte nag mënoon nañ ut beneen stratégie waaye dañ jàpp ne doomam jooju suñ ko gardewul ba ñi ko een am ci moom lay moom mooy am lay maanaam ku ko mënta jot doomam lay wut moo tax sécurité bi di ci daj loolu waaw kooku lum mënagum ku nekk primaire laa wax primaire di jàng loo mënagum est-ce que man sama doom def nañ ko ko ah yow yéen seen doom def nañ ko te lay tax ñu di ko ko defal lim jiite réew mi la beneen bi ci topp mooy mooy nekk en exercice du noonu ngeen koy waxe wàccagul beneen bi ci des mooy bakkanu doomam mooy bakkanam beneen bi ci des nag ñun ñooy cotiser di ko fay xaaji badara bii impôt yi muy fay ca lañ koy corfati crédit yi ngeen di jënd sax danañ ko ciy génnee courant bi ngay fay ndox mi ngay fay loo mën a def ci àddina bi état am na ci wàll loola muy def nag ci ay doomam état koy fay yemu ci de xaaji badara tey bu demoon ba wàcc dañ koy fay di fay ay doomam président Wade mi wàcc ba léegi état Sénégal ñoo ko yoreel fay ñoo ko yoreel garde par la force xanaa moom mu ne bëgguma waaye bu ne cëpp aéroport ay garde ko war a jëli ba ba muy dee ma wax la bi gën a garaw su jéggalewut bu dee sax bàmmeelam dañ ko war a garder pendant un an un an dañ ko ko war a garder bàmmeel bi kese kese atum yàlla dañ ko war a garder bàmmeel bi pour am na xam nga koo xam ne mëntoon jot président Senghor <laughs> day bàyyi ba mu dee mu dem ca bàmmeel ba gas ko wulli ko ne ko li ma la yéene woon a ngi nii loolu la ñuy bañ am nañu waaye ñii dem ci armée li Pikine yi di di sulli néew yi ngir lan ngir lan kenn xamut ñii ne làmb ji la ñii ne lay la ñii la lii la ki dem armée li Pikine sulli néewub jàmbur boo xam ne wóor na ko ni jigéen la tey lañ ko fi rob te dañuy laajte be xam kan la waaw waaw dañ leen di wax sëriñ si bu buxaaba yi ñoo leen di wax ne nay jigéen nay kuñ suul tey wala nay kuñ suul altine wala ajjuma nga toog ci koñ bi ba dégg ne diw faatu na bésu altine jigéen la nga daw armeel ya te xam nga ko sulli ko ndax lan càngaay wala lenn ci cëram dagg lenn ci cëram yóbbul ko sëriñ bi dafa am dafa am te dañuy ànd ci rob ba ba xam barab ba guddi ñu ñëw sulli ko jël càngaay li dagg ci benn kawaram lañ lay wax wala leneen nga dagg yóbbul sëriñ bi loolu lu ko jar lu ko jar ci àddina waaw ki def loolu ñeme na def leneen waaw donte nag man li xaaj xaaji Badara wax suñ ma laajoon dama leen di wax ne xale yooyu nañ leen utal yeneen école yoo xam ne fa la ñuy jàngee ñu di leen garder rek jeex na looloo gënoon a simple ak ànd ak modestie te gis nga li ngay xeeb am na ku ko xeeboon am na koo xam ne mu ngi ëkku fu président makisal Sall am doom wala fu mu am jarbaat wala fu mu am nangam rek wala sëriñ si sax sëriñ si ba ci sëriñ si ba ci sëriñ si du li ma fi nettali keroog ci sëriñ Cheikh yéen a ngi fi woon ajjum voilà demal ci sulamul murid bi alaaji abdul aziz bind sulamul murid bind na ca ne sànni nañ ma kort waaye yàlla miy musal mooma ma musal ba kort bi yegsiwul ci man wallaay mu ci sulamul murid alaaji abdu bind ko te booba la tax mu di ko bind am na ku ko fekk jak saaw mu toog mu raaxaloo ci nit ñi ba yegsi génne pistolem dóor dóor tàkkut billaahi wal kitaabi dóor dóor takkut alaajam ne ki lu may def nii ñu ñu ñu foton ko mu ne bàyyi leen ko man sama bakkan ci loxol yàlla la nekk nit mënu maa rey man Abdou sama bakkan ci loxol yàlla la nekk waaye nit mënu ma rey dóor dóor tàkkut biñ ko laajee lu mu wax daf fee yàgg ci xilaafa gi loolu kese la wax fii ci jak saw <laughs> nga yaakaar ne nit ñi amul am na lu fees seen bët dara feesul seen bët ki yebale ne nañu empoisonné empoisonné Serigne Cheikh mu denc ci poison bi 6 mois ba def ko ci Serigne Cheikh yi sëñ kër si wax ko ko mu ñëw ne ko lekkal ñemewul lekk te nii ma la xamee laa ko xamee sëñ Cheikh yëkkati 10 million jox ko ne ko tey la tàggoo yóbbal ma ak yow génnal kër gi xam nga sëñ Cheikh a baax ki la bëgg a rey nga jox ko 10 millions ne ko génnal kër gi maa yow xajatuñ ci kër gi mooy demal defaru ji waaye keroog la torox ba nim dee dafa alku maa la ko wax ba dee dafa alku nii ma leen xamee laa ko xamee xam turam xam santam xam fu mu dëkk ay doomam sax dañuy ñëw ci man moo tax du ma tudd turam te ay doomam ku leen ku leen gën a baax gisuma ko waaw yuxrijul xayya min al mayiti wa yuxrijul mayita min al xayyi tuuliju layla fi nihir wa tuuliju nahaara fi layli waaw loolu la yàlla di jàngale rek waaw tuuliju layla fi nihir wa tuuliju nahaara fi layli buy kañ moo jur xetax <laughs> buy moo jur xetax te boo tojee buy mu neex lool waaye bul laal ci kaw de jeex na ah buyee jur xetax yàlla musal ci jur xetax rek waaw waaye ñun ñëpp nañ bàyyi wante xel rek loolu rek laa ci jublu su ko defee nag ñu bàyyi wante xel bu baax am amante yërmande ci suñ biir kenn ku nekk jàppee sa morom sa bopp buñ ko defee rek lu ñu bëgg yàlla defal ni ñu ñu wàññeeku eñ eñ yi wàññeeku wax yi wàññeeku wàññeeku te nangoo liggéey nag nangoo liggéey nañ nangoo liggéey nañ nangoo liggéey nañ nangoo liggéey rahmati wasiat kulla shay'in man sama yërmande moo gën a rëy lu ngeen xalaat ci xalaat moo ko gën a rëy waaye nañ bàyyi yàlla ak jaamam yile ñun ñun binduñu yàlla yàlla ñu bind nañ bàyyi yàlla ak yërmandem nañ bàyyi yàlla ak yërmandem lu ko neex def ñun nañ ñaan mu def ci ñun yiw rek ak mbaax ak njëggal ak koom bu mag gis nga wax ju bari ji yëpp jim xam nga lu ko waral wërsëg wu néew rek waaye bu ñëpp oomaloon tuuti kenn dootul xas kenn maa la ko wax aji badara wax ji yëpp mooy dépense yi xaw a manqué rek boo amul dépense di nga sa xol bon nga yaakaar ne nit ñi la ko teg ngay ñaxtu koo jot saaga ko waaye boo amee dépense bu doy am na ñoo xam ne dépense bu doy moo leen jigut ndax soxna say njëkk am problème day commandé boo amee dépense bu doy rek day commandé non tey kii laa soxla quoi mais na pare midi ah. te yow yaa ngi daan am añ 4 heures tey ngay ndax joxe nga dépense rek nga ne na midi ni bi pare midi ah. teglante say tànk nag di weleex weleexi moom na muy toogee ak na muy waxee rek nga xam ne tey joxe na dépense waaye bu joxewul dépense cinq heures du matin lay génn te naan soxna si lijjantil maa ngi ñëw maa la ko wax ah, ah, moo tax nag loolu it inna min amwalikum wa awlaadikum fitna waaye nag wallahu indahu ajrun suñ borom ne doom yii tax di leen kurkuri soxna yii tax ngeen di tuñ tuñi dund bi tax ngeen di tuñ tuñi mu ne metti na fi yéen waaye billaay muñ leen ko tiyaaba bu rëy la ci man yàllaay wax ak ñun de mu ne fi bu ngeen xamoon li ma leen ci dëxëñal du ngeen tàyyi yonent bi dem na ci ba yegg ci ne am na bàkkaar yoo xam ne julli mënu ko far ak li muy rëy rëy salaatu ala nabi mënu ko far ak li muy rëy rëy dem màkk munu ko far ak li muy rëy rëy or munu ko far ak li ñuy li muy rëy rëy ñu ne ko lu ko mën a far mu ne xëy làmb sa poos jox sa soxna dépense donte tuuti na mu ne la la ci yàlla di dëxëñal boo ko xamoon di ko dolli waaw moo tax joxe depp infaaq kenn xamul nu mu toll ci yàlla dépense kenn xamul nu mu toll ci yàlla moo tax bu leen ci nay bu marché neexee yokkal bul nay bu marché neexee yokkal sama papa daf ma daan wax ne soo mënee dépense yi junni del joxe juróomi téeméer na sax rek juróomi téeméer yi mu ne ndax bu marché neexee nga yokk mu ne boo mënee junni ak ñaar téeméer defal junni dañ ci ñaar téeméer bi mu ne joxe muy muy mat moo gën nga dem ba mu yàgg nga wàññi ko maanaam dépare ci deux mille cinq cent yokk trois mille ba cinq mille moo gën di joxe deux mille cinq cent nga xëy rek joxe mille francs nijaay lii nag nga ne ko jamono naqari mu ne ah ci yow waaye man nag naqariwul ci man nga ne ko ah xaw ne seetal noo ko réglé yàlla ne ànduma ci boobu booy joxe na sax soo yokkee it xamal ko ne marché neex tey moo tax ma yokk de wala damaa am gan wala nangam wala nangam même xam ne looloo tax nga yokk soo ko saxalee it ne ko ah marché yi neex rek ñaanal muy neex rek buy neex rek nii rek buy neex nii rek buy neex nii rek te yonent bi nee na waxtu woo joxee sa soxna dépense génn malaaka yaa lay ñaanal ba ba ngay dël si lay ñaanal ba ngay dël si naan li ngay uti yal na nga ko am foo dem yal na nga taseeg yiwu yàlla wërsëgu woo xëcc yal na la wuyu loolu lañ lay ñaanal ba ba ngay ñibbi ñibbisiwaat ci kër gi moo tax dépense tuutiwul de bu ci kenn xeeb dara nag lu ci waay am rek joxe moo tax yàlla wax ko ci alquran foofu ñu jox leen tariqa bi moo tax yàlla wax ci alquran ne wal yunfiq zu saatin min saatihi wa man qudira alayhi rizqahu fal yunfiq mimma aataahu llah laa yukallifu llahu nafsan illa ma aataaha sa yaj'alu llahu ba'da yusra yàlla ne wal yunfiq nay dépensé di dépensoo zu saatin borom wërsëg wu yaatu min saatihi kemte lay wërsëgam am fam toll mu ne waaye woo man képp koo xam ne xudira dama xatal alay fii fii moom rizquhu wërsëgam ba amut lu bari mu ne ah bu mu ko teree joxe de fal yunfiq na dépensé rek mimma ca la nga xam ne aataahu jox na ko ko allahu buur yàlla min fadlihi ci ngëneelam moom yàlla ñu ne ko waaw yàlla lu tax mu ne laa yukallifu llahu nafsan teguma benn bakkan illaa ludul maa la nga xam ne aataaha jox naa ko ko ci wërsëg sa yajalu xel se naa def nag man yàlla te yàlla lu mu la ne xel se naa def rek noppi na ca dana ko def ndem yàlla mooy jël ay prudence ci diggante ak nit ñi kon yow booy wax ak sa moromu jaam jëlal prudence gis nga yàlla li muy am am kàttan sa yajizi rek ngay dégg sa yajizihumullahu ahsana ma amilu xel se xel se naa leen fay lu ëpp seen njort sa sa rek sa yudxiluhum jannatin tajiri moo tax bu ko fommee doo ca mën dara dogu wu ca dogu wu moo tax mu ne sax parce que mën na xëy rek wëlbati carte gi laa yusalu amma yafalu wa hum yusalun foofu la ko galgal moo tax doo dégg mukk mu promettre la àjjana totalement sa nuduxiluhum sa boobu mooy peut sa nudxiluhum jannatin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha abadan sawfa nudxiluhum fi rahmatihi gis nga toujours day jël prudence ñun nag dañuy def rek di def rek te duñ bàyyi duñ jël benn mesure duñ jël prudence suñ diggante moo tax yëf yi di ñu bett da nga nit boo koy dig sax da nga ko naan ah ci kàttanu yàlla inchaa allah boo xëyee ñëwal dinaa la jox cinq mille francs ci kàttanu yàlla incha allah ah boo ko fi fekkul nag xamal ne jamono la rek waaye am na barab bu ma ko bàyyi bu ñëwee buy ñëw mu ngi dugal ci ah, danaa am du ma am su amee baax na su amul dana ne waxoon na ma ko bàyyi woon naa ci xel naa seeti feneen waaye dig nit ki lu tooy xep mu ñëw nga naan ko ah malheureusement nag malheureusement nag moom dootuma ko mën tas yaakaar boobu tas yaakaar boobu ku ko attan yaag yàlla moo tax yàlla ne sa yajalullahu dana def baada usrin gannaaw bi mu la jafeñalee ba amoo lu dul 1000 francs wala 500 francs usran dinaa la yaatalal ba nga am ay 1000 ñu ne ko lu tax sa yajalullahu baada usrin yusra ndax maay yombal maay jafe waaw ah, ku ma neex ma yombal ci moom ku ma neex ma jafeñal ci moom waaye ñun daal yal na yàlla yombal ci ñun ni tibb ci suuf yombe te loolu wax wolof la de tibb ci suuf yombul de bari na ko dëkk ci suuf te mënta tibb ci suuf ndax fa mu tëdd ca lala tax waaw bari na ko tudd ci suuf te mënta tëdd tibb ci suuf ndax fa mu tëdd ci lala tax wala fa dëkk amul suuf nu muy tëbbee ci suuf waaw kañ danga naan ni war wërsëg yombee yàlla yàlla nañu ko yàlla yombalale noonu xam nga wërsëg moom kenn du ne jafe na ci yàlla mukk da nga naan ni wërsëg yombee yàlla yal nañu yàmb yàlla yombalale noonu wërsëg ba muy ñëwee boor bu ne su amee rek jàmm am waaw yii yëpp ñàkk pexe la rek waaye su wërsëg amee yàlla bu mu ànd ak bew nag man loolu rek laa ragal ci wërsëg wërsëg bu ñëw yàlla bu mu ànd ak bew wërsëg wu mën a ñëw yal na bari yal na sakkan yal na yaatu waaye yàlla bu mu ànd ak bew yàlla bu mu ànd ak bew ndax bew baaxut te ku bew rek yàlla dal ci sa kaw ku bew rek yàlla dal ci sa kaw kon yàlla nañu yàlla defal sutura nga jege sëñ bi tur bi